mbokk yi noo ngi leen di nuyu tey dellu si di leen laabiire di leen fàttali njariñul lay door ci njàngalem sëriñ bi lay door garab la goo xam ne dafa bari lu muy faj ci wàllu biir dafay raxas biir di raxas suukar di raxas mboolem jangoro yi ne ci bir serigne bi nak radiyallahu anhu wa nafaana bi barakatihi sunu borom daf ko xamalon lu ne la ci am njariñ ak la ci am lor ci daraje sangam ba sallallahu alayhi wa sallam mas na ci jangale ne kep kuy jëfandikoo suukar fekk muy tàngal ci kanam sëriñ Baaxir Boussa moom sëriñ Mbacke Boussa ak sëriñ Modou Xari Boussa moom sëriñ Massamba rek sëriñ Mbacke Boussa ñoom la doon defaral ataaya joxañ leen suukar si daan lii ku koy jëfandikoo te doo jëfandikoo lu weex lu mel ni senjang mu di ko lugg mbaa ngay ñaq ba muy génn baabo ngay jëfëndiko lay dur mu diko ko xal seen nga de tawat bané lacc bañ di sét kon tawat yi yépp yépp yépp té sukkar waral ko donte médecine dul fofu wala siiwagutoon sëñ señ mom junjoon na ko ci xam-xamam biko ko sun borom xamal dal li wax né nak ku koy jëfëndiko nak wër wo dugg wër arab la jublu wax moy sunu weer yi yi nga xamné rek dañuy séentu weer mu feeñ wala ñu matal weer yooyu la jubloo wax waxut weeri tubaab yi weer yooyu la wax ne boo ci duggee alxames yi jëkk ci weer wa wala altine ja ci jëkk baax na guddi ga ko jiitu nag nga koy waajal tibbi ci xob ya ay ñëpp def ci super te xob yi bañ a ànd ak i doom bañ a ànd ak i bant nga raxas ko ba mu set boo fa sa loxo tibb ci xob yi def ci super bi fabaat def ci fabaat def ci ba muy ñetti ngëp nga raxas ko ba mu set nga wut dankub daqaar bu yam rek waxuñ nag lu rëy lu baree bari dank daqaar rek raxas ko moom it def ko ci xob yi seet loo xam ne dana fees sa biir ci naan masalan litre wala litre bu manqué tuuti nga baxal ko ba mu bax nga sotti ko ci super ba ub ko nag bàyyi ko ba fajar nee na boo jëlee ci jàkk ji na nga xent ko xent ko ba nga xam ne ndoxam kese moo moom moom ngay am da ngay dindi xob yi ak ndaqaat yi fële fam ndox moomee nag jàng faatixa benn yoon fàllaxi benn yoon naasi benn yoon wal ko ca ndox ma daal toog jublu penk wax bisimilahi daal di fam ndox ma naan ko ba sa fees boo ci jegee nga dox jéego yu bari xam naa day mel ne waxtu wi jant bi bëgg a fenk boo ju boo jullee fajar rek fu muy leer rek fi ngay dox fi ngay doxee rek ba yëg ne dox nga del si waat nag boo toogee ba ca kanam nag ba nga xam ne jant fenk na ab diir ba yor-yor di bëgg a dugg foofu nag nee na nga lekk lu mel na laax teg ko ci masalan daal boo amee waxtu wala waxtoo genn wàll nga wut lu mel na laax teg ko ci lekk ci bu baax. laax ba it nee na soow piir moo ci gën parce que suñ soow yii yooyu soow yaawur yii lay bañ soow dara ko sanxalu suuna togg togg ko laax fab soo fab ma def ca lekk ci ba si biir fees bu ko defee nag ngay moytandiku naan lu sedd ak sangu ci waxtu woowu ndax day dog day dog day tax liggéey bi mu def du ko def bu ko defee nag mboolem lu nekk sa biir dana ko dinni ben nga tour ko ndox wala nga dem ko wonak fum nek rek dana ko fa fek dindi ko di dajale di dindi bam set becc ba melne ne li ci dewoon lepp dañ na boo demee nag mu di la yebal di la yebal ba man ñeenti yoon ba juróomi yoon tisbar bo ba na man nga naan ndox mu sedd guy ngir mu taxaw wala nga sangu boole ci yoyu nak boko xasse def boko yegge ak boko yegge jël bo ba na man nga naan ndox mu sedd ngir mu taxaw wala nga sangu boole yooyu nag boo ko xasee def boo ko yëgee ak boo ko yëgut jëriñ na la même bu la tekkiwut sax am na du muy jëriñ ci sa biir sëriñ bi daal di cay teg ku ko defee nii ma la ko wax nag saxal ko weer wu benn yoon docteur du am ci yow aw du am ci aw yoon docteur du am ci yow aw yoon kon nag mu nga noonu sëriñ baa ngi noonu ci jëfandikoo lay tuur yaakaar naa leer na.